préparation bi lii yëpp ci tooga bi cere bi nag lañ jënda ndawal yee nekk nii ñu ngi leen muus mbuus yëpp def leen ci frise bi nag lañ jënda mu ngi nii mu ngi fii mm-hmm. gisoo yeneen yaa ngi nii fii mm-hmm. yii pour jaga yi la ak yeneen ndawal yi waaw ah. fi nekk waaw <laughs> mais di defuñ ndànka mm-hmm. lii nag carton yi ganaar yi fuul ganaar yi ñoo nekk foofu noonu yooyu yëpp si soog si cere bi la bagage si cere yee nekk nii kànja yooyu pour fufu bi la supa bi ak benn ci ni gis nga dugub bi ëllëg la ëllëg la gars yi di ñëw pour aaral bala ñoo ñoo commencé mooñ bi cere yii yëpp saaku yi la saaku dugub yi la yii yëpp carton bi yëpp fees dugub la paquet ci dugub xam nga fii moom amul dugub comme Gambie ay paquet paquet la day nekka mhm. moo fi nekka saa ñaari saaku yi yi carton loolu la mhm. saaku cere bi la diwlin yee nekk fële légumes yi yéen a ngay gis carton yi ñaam bi bee nekka foofu noonu bagage yu sew yi yépp am fi dara manqué wul neen yaa mu ta fripe fële maa ko denc waaw hmm. lii moom ganaar la waaw ganaar baa fa nekk hmm. xalaal la hmm, xalaal la tamaate yi fresh nañ de tamaate yi fresh de gis nga përi tamaate yi la waaw ba mu xonq cooy be dara du manqué incha allah. keroog mm-hmm. waaw xam naa li poti poobar la si sekunda yi mm-hmm. si mm-hmm. sekunda yi keroog moom ak daaba kunda yi moom. la ñoo duñ def nag togo bool bu ndaw. togo bool bu mag lañ di togo bool yi kay fonkal nañ ah. ñaata foo boxes macha allah ah. limon la ak carotte. saako carotte. saako liñoŋ. waaw. Hmm, machallah ah. leket mi ngeen a arawe ne <laughs> ko leket yi ngeen a arawe maire yi nag dañ pare ah <laughs> grandement yi alhamdulilah kon jànga yi ñi ko def mooy ñoom imam Muhammad Job. um, eh, eh, imam Muhammad um, tarawale astafurlah ñoom uh, imam khalid nekkal leen masjid um, am nañ about imam bamba damfa am nañ about five imams um, imam Muhammad waaw Topik singa nga xam ne moom la ñoo mooy um, uh, raising our kids according to Islam uh, muy pour yar njaboot gi ci diine Islam ak yëfi dëkkandoor axi dëkkandoor dinañ ko waxtaanee dinañ waxtaanee njëriñi julli foofu noonu di importance of salah dinañ waxtaanee tamit um, uh, affaire yi tongo ak mero ak jaxase wante yi ñooy topic yi nga xam ne tànn nañ ko incha allah woto mbaadiŋol altol yaaje um, bagage o lomñinti kaɓir mm-hmm. jorangol lomñinti aɗa yaaƴi